tay dañuy dañuy jagal jagleel ben journée ba nga xamné dañuy dañuy célébrer jigen yëpp pas parce que tay rek la mais dañuy jël occasion bi bo xolé ministère éducation nationale depuis ñaari at am nañ cellule genre c'est vrai que cellule bi légui la doo di am mais ñepp xam nañ ne éducation nationale fu mu toll mo ngi xeex ci njangu jigen yi moi aussi ci jigen yi di nek ci yenn poste responsabilité yi boo ministère bi directeur de cabinet bi jigen la SG bi jigen la directeur yi directrice yi aussi bëri na ci ay jigen ak coordonnateur de projet et de programme bo wàccee sur le terrain aussi inspectrice d'académie ak inspectrice de l'éducation et de la formation bëri na ci ay jigen bu wesso lool aussi enseignante yi bëri nañ trop ci terrain bi loolu boko xolé day gëna day gëna euh, jëmmal li nga xam ne ñoo ngi koy def ci jigéen yi boo xoolee 52 euh, des des des des des élèves ay jigéen lañu te résultats yi aussi boo ko jàngatee di ngeen gis ne jigéen yi bon nank nank ñoo ngi ëpp résultat li ci dess moy gën leen jàppale pour buñuy dem ba yenn examen yi ay bac ak yooyu noonu effort yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci suuf mu egg ci kaw loolu ministère bi moo ngi ciy dox ren ñoo ngi leen di accompagner te ministre aussi joxe na ay instructions pour que ñu gën leen tàggat pas pour défavoriser góor ñi pour ñu gën a am ay aptitude gën a yem pour que bu ñu defee ay examen wala ay concours ci yenn poste yi jigéen ñi am chance aussi am ci accéder ci donc ñoo ngi gërëm vraiment le ministre de l'éducation et aussi le président de la république parce que gis nañ effort yi pour que nous yi aussi ñu formation accéder à des postes de responsabilité. waaw bi ne système éducatif mais aussi loolu bu amee soo leen jàppalewul que dem pour ñu

seen àq ak seen yelef waaye ñun tey dañ ko def journée sargal monsieur le ministre Mamadou Talla